maa ki xar baax wilaaya ki mbooti xol ku leen masaam sel boo ku dul yow Serigne Touba ku dul yow dadaa sel boo ka dàqo ka rekke ngëm di alke ka yàqante ka fàtte Touba ku yor ta lambo rahmatalahi lewet li ngay muñ taman ko faj amoo kem Serigne Touba Kajoor ak Bawal Siin Saalum Jolof ci say may lanuy baawaane yaay géej gi war waa Touba yaak soldaar si xam nan la baafali commandant yaak kàngam yi xam nan la bis Touba kamaal ak mooy mat dootu sew matuk seydul kaw lan jox Serigne Touba giñoon naa ni yaay wutaatu makka cig defar ku sikki sàkka lii moo reere yoonu Serigne Touba aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayidina wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa jaal kalaami rachidan wa mursidan wa fikrati nawir wa xalbi arshida ñi ngi ziara bokki taalibe yëpp yi topp ci di ñu bàyyi xel ak fu ñu mën a nekk ñu nekk fii ci kër sëñ Mouhamadul Mahmoud Ñang ibnu sëriñ Xaadim Ñang moom sëriñ Afiya eh, muy amal bis bu am solo boo xam ni da ci sant Cheikh Mouhamadul Fadal muy bis tey mboolem mbokk yi ñëw dajafi ak wëllëre yi ak xarit yi ak bokki taalibe yi te lu mel noonu yàlla ci ñëpp ndax ku ne xam na ni Cheikh Mouhamadul Fadal jëfal na lislaam jëf ju tax ku ne amel ko njukkal rawatina nun murid yi rawatina nag ñi nga xam ni moom mi nga xam ni dafa bokk ci Cheikh Mahamadul Fadal eh, xëy na dina gën a leeral ci ay waxam ci eh, li li sabab bis bi du ngir delloo ko njukkal wala sant ko du xëy na du bokk gi mu ci moom waaye Cheikh Mamadou loolu mu waxoon ni dama dugg ci biir sëñ Tuubaa nga xam ne duma sax ab taalibe dugg naa ci moom Euh, foofee rek daanaka fala njabootam gépp féete bu ko defee ñu jox kàddu gi sëriñ Mahmoud bu ko defee mu dikk ci ay kàddu ngir gën a leeral bis bi li ko sabab ak li tax mu def ko ak defin wiñ koy def solos bis bi dina ci dikk daal mu gën a yaatu incha allah kon ñu bàyyee ko kàddu gi bu ko defee te teewlu ko mu leeral nu li sos bis bi ak li li njariñal bis ak façon maanaam defin bi nga xam ne moom lañ koy def bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammad wa ala wa sahbihi wa xayra xadimihi wa sallama taslima rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajaal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñ maam Cerno ngir laaj boobu rek nga ma laaj mu jëm ci ku baax ku tedd di cheikh Mohamadul Fadal ibnu cheikh Ahmadul Xadim di niñ koy waxee di taalibe bu mag boobu wala murit bu mag boobu ñu am pas-pasub di ko taxawalal bis di ko ci delloo njukkal ak di ko ci sant loolu yaakaar naa ne boo ma ko laajee dana yomb lool ginnaaw bi yàlla dogalee li yàlla di dogal ci doomu aadama muy ak mbokk bu dox sunu diggante mu bokk ak sunu maam ji nga xam ne mooy Serigne Afia soxna Awa Bousso bokk gi doy na sëkk bokk sëñ Tuubaa doy na sëkk ëpp na sax bokk pas-pas bokk mbokkuk deret waaye bokkoon doon taalibey Seexul Xadim sëriñ Afee di koo xam ne ku teel a jëbbalu ci sëñ la ndax wax nañ ne bi yàlla dogale mu gën a jamono rek la ko way juróom leewu dem yóbbul ko sëriñ xamal ko ne bu dundee yow la dundal bu defee leneen yow la ko defal xamal ne may naa la ko ndax way juróom woowee di sëriñ Abdou Kumbaan mbake soxna Kumbaan Mbàkke mi ko jur Ahmadu soxna bu sa ko jur soxna bu sa maam maaram sëriñ Abdou Kumbaan moom it sëriñ Afe mi mag mi ko jur Assa Mbàkke ñang di taw maam maaram moo ko jur kon sëriñ Afe dafa sëtoo ci maaram ci wet yëpp waaye nag mu wàññi ku bokkaat ak Cheikh Mouhamadul Fadal soxna aw Bousso soxna aw Bousso Serigne Bousso bi maam a Ahmadou soxna Bousso kon bokke naag moom ñetti ñetti yoon waaye nag murid saadex la woon boo xam ne dafa jeexaloon dundam gépp ci Serigne Touba moom Serigne Afee bi ko waay juróom jébbalee it yàlla dogal ne diir bu gàtt lañ ci teg waay juróom woowee wuy ju boromam xare boobu ñu doon wax xare Samba Sadio ci la des waaye bi sëriñ bi demee ci géej gi ba dellu si dafa yónnee woolu sëriñ Afee mu ñëw soxna Abu Sala ko laaj ne ko na ma ko na ma ko andil mu andil ko ko mu ne ko yow de sa wayjur dama laa feeñuwaat bi ma nekkee ci liggéey bi feeñuwaat na ma di ma la feddaliwaat di ma la dénkaat ne ko alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw yàlla ginnaaw ginnaaw moom ci boppam feeñuwaat na ba di ma dénkaat kon alhamdulilah man it kon jébbalaat la ndax loola kat sa digg ak moom la woon waaye lii moom sama jëmi bopp man it mayaat la sama bopp ci la ko sëñ bi wax ne kon delluwaatal nga àggale ji sa àlliba mu delluwaat àggalewaat àllibam sëñ bi ne ko nag soo noppee na nga dajale say bagage ta nga ñibbisi waaye boo ñëwee foo ma dégg nag ma fa fekk bi mu ñibbisee jóge jolof bind ab kaamilam ba noppi mu ànd ak doomi baayam ji ñu wax sëriñ seexu bi ñëwee Tuubaa rek ñu yëg ni sëñ bi ma nga jëlee nañ ko fi ba yóbbu ko gànnaar mu daal di continuer wëti gànnaar ba muy dem mi nga ànd ak sëñ Abdou Dia Duyole di mi nga xam ne moo bokk soxna Fat Jami taawub Cheikhul Khadim fekk moom it ab kaamilam noppi waaye li ci yéeme mooy bi ñu dem jaar nañ ndar fekk fa maam Cheikh mu làggante leen lool toppatoo leen wax leen fi jaar jox leen a yóbbal ndax booba yoon wi doonu amutoon ay ay warawaay yooyu yëg wala dara ndax da ngay dox booba pas-pas rek moo mën a fekk sëñ bi gànnaar waaye bi ñu dox ba àgg ci tefes ga muy frontière bi doxoon diggante Sénégal ak Mauritanie ca booba jamono fekk na booba sëñ bi Mauritanie ñor na ko ñoraay boo xam ne ku mu joxu ndigal wuroo ko faa fekk ka bëgg mu ko fay fekk day koo xam ne day yor melokaanu murid saadix doon ab jullit xaqan doon boroom xam-xam nga xam alimul alaama lay doon bu ñu yegsee ci maam Thierno la fekk na sëñ bi bind ko aw kayit moom Seexul Xadim xamal ko ci ne ko Ahmadou Xaafiya moom nga xam ne mooy doomi soxna Awa Bousso ak sëñ Abdou Jod yoole moom ak seen rak yooyu ñu àndal bu ñëwee moom buñ leen buñ leen tey nañ daal di ñëw ndax dama leen fe soxla lool kon taw feexi sëñ Tuubaa da koo teelaat gàttandu booba xamut sax euh, ci saahir xamut euh, lu bëree bëri ndax yar nañ ko tàggat nañ ko waaye xamutoon ne àgg na dayo boobu ci sëñ bi ba màggee àggee ba siyaari sëñ bi sonn lool sëñ bi leen xool ba mu yàgg mu ne leen naka ngeen def ba ñëw ñu ne ko ñu nga jógee ci réew mu de waaye dañoo dox ba egg si sëñ bi dafa fett si daan ne alhamdulilah rabbil alamin lii da ab yar bu baax rek leen ko may yar bu baax de moo tax ngeen mën a doxee ci réew moomee ba ñëw fekk si ma fii ku am doom yar ko de bu ëllëgee da nga xam ne ko am doom yaru ko da nga xam ne am doom yar ko rek moo am solo daal leen wax nag dama bëgg ko fa nekk léegi nag damaa bëgg ngeen xam ne fii moom mu doonul fu neex ndax tubaab bi ñoo ma fi indi gis ngeen leen seeni pexe doy na waar ku fi mën a nekk da ngay mën a muñ doon ab jullit xaqan da ngeen bañ fee bëgg dara ndax maa ngi leen di xamal ne kat ngeen bëgg fi dara bëgguma ngeen dem sax ci naari gànnaar yi di fa wuti dara ku dem da nga yàqu léegi la leen doon wax leen lii ngeen di gis muy jóge Sénégal ñu ko indi fii ma koy saraxaat naar yi bëgg naa ngeen xam ne soxla ma ci dara ndax suñ borom mi bind àjjana kat su fekkoon ne moom moo bëgg àjjana kon kenn du dugg àjjana bon mi ngi leen di wax ne ñi ko am ba ko fi indi su ma ko soxla woon ni ma ko ni ñu ko amee kon ñoom duñ jot ñu nekk fa nekk na fa ak sëñ bi ci tënk rek juróomi at jóge fa bi sëñ bi ñëwee gànnaar it jógee gànnaar ñëw jolof sëriñ Afe foofu ci gànnaar sax nekk na fa euh, jawrin jiite daara kaamil ji jiite liggéey bi ngir ak njàmbaaram doon ku bari pëstef te bëgg sëñ Tuubaa murid saadex boo xam ne kii maan la woon bañ fa nekkee ba jóge fa def nañ fa juróomi at yu manqué tuuti sëñ bi ñibbisee Sénégal ñu yóbbu ko boori Jolof fa ñu wax ci waaye teewul mu taxul mu tàqali moom nekk na fa ba jiite fa tool yi ñu doon bàyyil sëñ bi jiite fa daari doy na sëkk ab ci suñu borom rek tool yooyee sëñ daa waxoon ne tool ya turi tool ya rek daa waxoon ne ku ko xam sa yaram sa yaram sa yaram xaraam na sawar toole mi ngi tuddoon bustaanul aarifina aw rawdu rayaaxina aw faydu a saalihin sëñ Tuubaa ne ñi fi liggéey ñëpp ay ay ay nit yàlla lañ maanaam ñi fi liggéey yëpp am nañ ngërëmul yàlla ay aarif billaahi lañ sëñ Aafia moo doon jëwriñ ci kon tool boo xam ne ñu fay liggéey ay aarif billaahi lañ ku doon jëwriñ ji wax dëgg fi yàlla jàmbaar mu nekk ndong moom foofu ba ni sëñ bi bàyyi ko foofa 1912 ñu andi ko njaareem taxul mu taxal koog moom waaye wax na ne bi ñuy jógee Jolof di ñëw njaareem dañ doon dox ñaari fas rek ñoo fa nekkoon wet wi sëñ Mbàkke Buso moo ko war di nijaayam ndax mook ko soxnaaw bu sax bokk lépp bi sëñ ko sëñ yor wax na ne sëñ Aafe moo dafa yenoon ak gaal ba noppi yor laab am na ci ji ji ji boobu dañ ko doon dañ ko doon awantoo ku yor ba sonn jox keneen waaye si ñaa fi wax na ne am na ci jënn ci jënn jëmo jamono joo ne damaa dem ba sonn ba mënatuma dox suñ bàkki bu sa fa kii aw fasam ba tolloog man rek jàpp sama loxo yëkkati ma togg ci aw fasam waaye nee na bi ma sëñ bi gendikoo rek ndax daawut ges waaye bi mu gendikoo rek dafa ne ana loolu mu ne ko enfaye de la dafa sonn loolu moo tax ma xettali ko sëñ bi dane ko na wàcc cëppeel ko fii ko fi defu dara doo fi am dara nee na bi ma loolu dafa mel ne damaa beesaa teq ànd ak sëñ bi ci noonu wax na ne bi ñuy tolloog Touba boobu fekk na ab sanc la boobu Touba boobu barabu soxna Aminata Lo rek moo fi nekk kenn nekk fi waaye bi ñu tolloog Touba sëñ fi nen sëñ bi ci bopp moo ne ma Ahmadou fu ñu toll fii nee ma ne ko ñun de ñu ngi toll ci kër Touba gi ñu ngi ci barabu soxna Aminata Lo ci xàll bi nga xam ne moo jëm ci barab yi sëñ Touba ne ko fii de miinoon naa ko lool nee na foofu nag gis na sëñ bi am fi melokaan woo xam ne ndax sëñu fee wàcc sëñ to xool dëkk bi sëñ ci am genn bëgg sëgg ci fas yi ba ni yonent bi sa alayhi wasallam defoon bi mu def fàttu mag toroxlu googu neen Sëriñ Tuubaa def na gu ni toll nee na ma woy rek bañ romb jumaa ji di woy di woy ba egg si fi toll ak mbal nee na mu laajaan ma ana fu ñu toll am na ko ñu ngi toll fi ñuy wax déggu mbal sëñ bi ne kon mën nañoo daal di tekki foofu ñu woolu maam Cerno ci daaru ma naan googu mu ñëw sëñ Sëriñ Tuubaa mu dénk ko koy dénk dem njaareem bi mu nee ba njaareem ci la ko sëñ 1913 nag ci la ko Sëriñ gërëm yeewi ko mook Cheikh Mahamadul Fadal Cheikh Mahamadul Moustapha ak euh, sëñ euh, Mor Roqe de se euh, maanaam bëri nañ sëñ Bàkki bu soog sëñ sëñ Daam Abdourahman Lo ak sëñ Balla Badiane bëri nañ ñu bëree bari da leen bu leen demee ba Touba ngeen daan na sama dëkk boobe te ngeen sanc fa dëkk sëñ ma Kane waaw Daaru Xadim sëñ Masamba daaru daaru daaru daarul xadim sëñ ma kii daarul karim sëñ ma waaw sëñ Modou Moustapha tindoori ak nayri sëñ Mamadou Fadal ndindi sëñ Afe booba moom it mi ngi sanc foofu ci wetu yoon daaru rahman ñu koy wax bu saanul arifina moom la mu ngi ko dëppee ci bu saanul arifina googee woon ci jolof sëñ bi gërëm ko lool nag waaye boo gisee ma indi la biographie bi loolu lépp lu mat a wooteel bis la lu mat a sant la lu mat a di tudd waxtu wu nekk la ay sona Awa Bousso da koo mosaw ba mu ñëw mu ne ko maa ngi lay dénk bul wat dara bul bëgg dara bul am dara sa lépp boole koog loolu sëñ Fallou moo war ñun amuñ dara lu ñuy wët ci àdduna lu dul waral yi ngay dégg ci yoo ci kër sëñ Fallou muy ay sarang yëpp daanaka kër sëñ Afia dañ koy def ngir roy ko benn bis lañ am ci àdduna bu ñuy woote it muy mag màggalu Kazu Rajab ndax fa la ko sëñ Fallou doon defee ci njëlbeen fa joxe ndigal li def na ko fa ba ni mu fi bàyyi ko moo tax bi ñuy biñ bi demee nag ba am yëg-yëgub nag ne sëñ Fallou kat ñëpp ngi wàññi ko di ko ndamoo ñëpp ko bëgg ñu doon ab jullit sax dañ ko bëgg ñun yàlla defal ñu taw féexi ñu bokk ak moom ñu am yëg-yëg boobu nag ak ak fës ko yéene njukkal ak ndokkeel ko moo waral ñu woote bis bii nga may laaj xam naa ci guddal rek euh, dama doon def euh, taaliq ci diggante sëñ feek ak sëñ Fallou ni leen sëñ Tuubaa boole waaye am na ay xusuusiyaat yu bëree bëri yoo xam ne bi ku sëñ Tuubaa di wax mm. mook ko sëñ Fàllu ak soxna bu sa àndoon bokk na ci bi siyaare nañ ko ba noppi bay dem mooy leen kaay leen ñu ñëw mooy leen yéen ñett ñi maa leen warlu àjjana damintu du xulakumul janna ak soxna bu sa nee na ñuy dem mooy leen dama bëgg ngeen ngeen ñi fàkk daal di fàkk ci suuf bind ci baat yooyu damintu du xulakumul janna seere naa seenu tàbbi àjjana la ñuy dem mooy leen jël leen ko ngeen yóbbuloo ko ñu jël suuf soosé biñ génnee soxna aw bus ak sëñ Afi boole seen suuf sëñ fallu jël suufu su boppam kon daal euh, noonu lañ meloon bi ma demee nag ba am yëg-yëg bi nag ma xam ne sëñ Fallou ñëpp a ko war a wooteel bis waaye njabootu sëñ Afi ñoo ci raw ñu dajaloo fii di ko wooteel bis di ko sant jàng nañ ci alxuraan lu mat juróom ñett fukki kaamil ak ñaar mu tolloog ak dundam def nañ ko addee Cheikh Mamadou Fadal te fasal ci ñëpp ñu am jàmm ndax sëñ fallu kat nitu jàmm la woon nitu yërmande la woon nitu xéewal la woon traversé na lu ne ci àdduna waaye taxul nag yërmandeem ku ne xam na ne daan na wax ni yërmande suuf laa ci daan na wax ni yër yërmande na suñu borom képp laa xam ne moom ko ëpp ci jaam ñi waaw ak taalibe Cheikh laa ci roy waaye yërmande suuf waaw muñ suuf <laughs> kon nag eh, buñ bokkee ci moom ñu nit doon ay dongam doon ay sëtam war na nag léeg-léeg ñu def taxaw bis taxaw seetlu woote ko ni nga ko waxee mbokk yëpp a ngi nii njabootug suñu aafe ñang njabootug Cheikh Mahamadul Fadal njabootug Soxna Mariama Kunta njabootug suñu aafe Busa suñu Mbàkke Busa njabootug maam Cheikh Anta ñëpp a ngi nii Daaru Salaam ñëpp kër yëpp a ngi nii fii rek bu fi yemoon tey daanaka lépp baax ndax ñu xëyee sëñ Cheikh Awa moom Cheikh Mahamadul Fadal am jaata moo ëbbi bis bi ñëw fi wax fi wax ju yéeme yéeme tey jii njaboot gépp a ngi ni toog kon ñoo ngi suñ mbokki taalibe ñëpp sant nañ bu baax gërëm nañ bu baax a baax xam naa taaliq moom daanaka du ko <laughs> du ko mataat bàyyi rek nga wéy ci ndax bu gënee gudd dañuy jël lu gën a bëri ci temps te euh, al isaaratu takfi euh, jërëjëf sëriñ Mamoun yaakaar naa euh, ni mu ko leerale am na lu bari loo xam ne leeral na ko ci dunduk sëriñ Afia Ñeng sëriñ Afia mi nga xam ni mook Cheikh Mouhamadoul Fadal ñoo bokk soxna Awa Bousso te ni mu leerale cër yooyu cër boobu nga xam ni sëñ Afia amoon na ko ci sëñ bi ba bu daan wax day wax Afia sama moom ñëpp xam ni sëñ Afia ñangi la jubla wax ndax eh, ku ne dégg na ci nettali yooyu nga xam ni mag ñi nettali nañ ko ci eh, ci sëñ bee toog mu ni maan nga xam ni dañoo fekke ci nettali bi ci sëñ Massayer ba doon nettali ci diggante sëñ bi ak sëñ Afee Ñaŋ muy nettali bu gudd ci wàllu gisum weer wa beneen bi itam mooy eh, ko dégg ci yoonu murit bañ ne la fekk na sëñ Tuubaa gànnaar xamal na ci jàmbaar la bokk te gànnaar fu fu jafee dem la jafe dem la lool ba noppi désert la foo xam ni amutub dund ñañ fa njëkk a booleeg sëñ bi ci naar yi ña fa njëkk a nekk Cheikh Sidiya Baba nitu nitu yàlla ku mag la waaye ñam fa nekkandooloon ba seenu dund jeexee dañoo tuxu dëgg te sëñ bi sëñ moom Lamine nee na xamut ñoom jàpp xamutoon ni ab dund moo leen tax di tuxu dëgg ñoom li leen tax di tuxu mooy dund bu jeex ñàkk luñ dunde foofu it nit daal sëñ bi ñam fa nekkal daan nañ fa xiif bis ba bis ba dellu si xiif yu bari am na fa yoo xam ne daanaka duñ am lu dul waxtu ba waxtu ba dellu si kopp baraay ci ak ak ndox lu ñuy jëfandikoo lu lu lu ñu dund ko fa waaye sëñ bi nag itam ña fa nekkoon am taw tawfeex ndax diggante Sarsara ak ni mu demee Jaraariya ba dellu Sarsara ba dem tuntu Mosin ba dem xumaag may gune ak xéewal gune yàlla jagleel ko ndax sëñ bi daa waxoon ni man zanna sayri xibba aami aksasi misla masiri raxsi aami jaysasi sabatu kawnuhu jahulan qumra alhuwa tatibul ali lil umra lam yàkku sayru ak sa si siwa jaza man liya xaada baadu waxdanan jaza képp ku njortu ni dem gi ma demoon mm, gànnaar 1903 dama demoon ngir liggéey nee na dangaa dof nee na jey sasin 1895 laa demoon ca tukki ba ngir liggéey waaye gànnaar dama faa demoon ngir fayiku ji liggéey boobu moo tax dafa mel ni yàlla da koo signal ab chèque ni ko nag banque bi nga ko war a retiré jee mooy gànnaar moo tax jeexitu nit yàlla ya fa nekk yëpp mu jël ko ëndaale ñi nga xam ne nag ñoo fa nekkandoo woon ak moom nekkandoo ak moom ci ñooñu la sëñ Mbàkke bu si tuddee ni ñooy wóoru njëkk ba nee na ñooñu leer bàyyikoo ci sëñ Tuubaa ko naan nee nañ nee nañ ñooñu kenn melut ni ñoom ñooy murid yu mag ya waaw dañu murid mag ya mooy ña njëkk ànd ak sëñ bi ca ba muy am jot ba muy feex lam leer yam yoroon ñoo ci njëkk a naan ñoo ñee nee na ñooy murid yu mag ya nee na ñaareel ba mooy ñi nga xam ne dañ koy fekk ña fi suñ tubaa yar ñay ñëwaat seen gannaaw nag fekk fi fekkuñu fi ña fi suñ tubaa waaye dañ fay fekk ña fi ña fi suñ ña yaroon ñañ yaraat ñooñu ñooy ñetteelu murid gi léeg nga dégg sax murid bu naan ñeewuñu mag ña waaye day day koo xam ne xamut ni ni sëñ Tuubaa ba mu fi nekkee jëruñ ñuy jàpp ci mbindam jëruñ ñuy jàpp ci doomam day wax li mu wax ak leer la maanaam muy jaar dugg ci sa nopp noppum nit ki di sar ci xolam mu koy jëfandikoo ci cëram wala nga gis ko mu jeexital ci yow ngay jëf moo tax ña demoon tamit ceen sëñ Moussa am sëñ Saalihu dafa wax ni waxuma la ceen di am luñ dunde ci ndax garab yi garab yi dégg àll moo fa amoon ni ceen tubaab yi looloo sababoon ñu yóbbu fa sëñ Tuubaa mu ne nag àll ba ñetti buru yi moo fa am buru buru yi nee benn bi mooy tuddoon na picc ma picc moo xam ne danaan sab sab gu xumb benn buru wi ci moom la daan jóge ñaareel ba mooy gor gi taalibe yi di gor àll bi ngir di am luñ taale ñetteel ba mooy yëkkati xasida yi ñu fa daan yëkkati mooy daaj bi nuroog daaju soxna faat soxna faat ja bi suñu soir nee na booba moom lañ daan jàng foofee ceen sëñ bi laaj na ñoom sëñ Masamba ba ngeen fi nekkee léegi loolu leen fi jàng ci alxuraan ci diggante juróomi at yooyu ñu ni ko mm, sëñ Masamba ni ko mm, takku takkuma ko mu ne ko man day Masamba jàng naa fi junni kaamil te loolu waxee nu soññee la waaye Sëñ Tuubaa sax moom dafa dafa yàlla ci boppam moo denc ci moom alxuraan <laughs> maanaam <laughs> moom léppam alxuraan la kooku beneen bayit mooy foofa jafe dem gi mu jafee dem ak ña fa ne xam ni tubaab bi dañoo jël kenn ku ñuy wax maxeet teg ko fa ba noppi ni ko lu ëpp cinquante personnes bu ñu fi ñu fi dugg ci yéen ndax amutu yoon amatu meññet amul dara waaye sëñ Moolay Buso nee na maxeet moomu door na fam naar ba damm ko ngir ku fa ñëw da lay dëpp mu ni nag waxoon na naar ba wayoon na ñaari bayit waaye sëñ Moolay nee na benn benn bayit wala bo mokkal mooy yàllaahu yaasal bilaadi ya maxeet yaa muxiit xul bay na naa wa bay ka wa bay na abduka maxit ya yaasal bilaadi yaa muxiit xul baynana wa bayna abduka muxiit dani ko yow yàlla yow borom réew yi yow borom planète yi yow mi ngoor lépp maa ngi lay ñaan nga dox sama digganteeg sa jàmm bi di maxeet ngir ngir soxor gum soxoroon kon àggoon na ci jéggi dayoo kon Sëñ Tuubaa nee na it ci yéen ñam fa tërbiye tërbiye na leen tërbiyeen woo xam ni maanaam ku ku ñëwul ci yéen amu amoo mooy ne nag wéetal na fa yàlla wéetalin boo xam ne mës am ci benn gox bu mu ko mës kon ña fa jógee woon ñi nga xam ne ñoo fa demoon doy na sëkk kon bu ñu tuddee sëñ Afia muy wane cër bu mu am ci sëñ Touba ak ni ko sëñ bi fonke woon ak fu ndax sëñ Touba soxna Awa Bousso mooy ki njëkk sëñ Touba njëkk sax soxna Amintaloo ci sëñ Touba jiitoo na ko fa juróom benn weer juróom benn weer yim jiitoo soxna Amintaloo daanaka mooy juróom benn weer yi Cheikh Moustapha magi sëñ Fallu Eh, Cheikh Moussa mi ngi feeñ muharram sëñ Fallu feeñ ñaar fukki fan ak juróom ci rajab eh, soxna Awa Bousso nag la sëñ sëñ Bousso bi waxoon sëñ bi ni na fi ñëw balaa ndax da koo yëgaloon gi soxna Penda Buye moom ñuy dénk-dénkaan bi moo sàkk ci sëñ bi ngir soxna Aminta Lo ñëw fi mu ne ko déglu ma tàggu ci sëñ Bousso bi sëñ Bousso bi ko bala moo ñëw na soxna Awa Bousso ñëw ba noppi soxna Awa Bousso jiitu fa juróom benn weer soxna Aminta Lo doog a ñëw sëñ bi wax ni dafa xëy fii daal di wax soxna Awa Bousso ni ko dama bëggoon nga ñaanal ma mu ni ko boo defee ci man lu tax ma mën laa ñaanal ma mën laa ñaanal nee na daal di wax ni ko ana loo bëgg nee na soxna Awa Buso nee na sëñ bi sëñ bi ni ko dama bëggoon a siyaare ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nee na soxna Buso ni loo bëggati dañu dañu ko dañu ko dañu ko loo bëgg sëñ bi ni loo ma yéene rek ñaanal ma soxna bu boso ni ko loo bëggati ba nar ko wuti ji yàlla na la ko yàlla xëccal mu ñëw ci sa dëkk bi nee na sëñ bi booba defarloo ko cere ba mu ko defaree ba noppi tom tombeeg mu dugg xalwatu bu gàtt génnaat daani ko soxna aw buso sa ñaan nga suñu borom nangu na ko ndax suñu borom xamal na ma ne des na tuuti dinañ ma indil fii kaaba gi ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ak ak jibril léegi nag loolu mooy lim bind ci xaatimatu munaajaat bi mooy lim li kataballaahu tabaraka wa taala anna baytillahi raaram tarfaul malaikatu illa tuuba wa fihi rasulullahi loolu nag la tax mu wax ko tuuba moo tax mbóot ma mooy 28 araf yooyu ni kaaba gaa nga fa mu nekkoon waaye mbóot ma nekk ca roon kaaba ga moom la bëgg wax secret ba sa daan ni soxnaa bu sa nag li tax ma am ci yoon wi yaakaar lii ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam digal yaag aadama gay yéen a tax ndax adduna aadama ak ci njëkk te sama yoonu wi yàgg Adama Gueye ci njëkk sëñ Adama Gueye njëkk a jébbalu soxna Awa Bousso mooy ki njëkk njëkk ci kër sëñ kon mel na ni yoonu murit Adama kon ñoo ci njëkk cër boobu yit nga xam ni moom la am ci sëñ Touba cër bu rëy la kon loolu day firndeel li sëñ Mamadou mi wax rek ci ci soxna Awa Bousso waaye Cheikh Mamadou Fadal it sëñ bi jagleel ko lépp daanaka loo sëñ Fallu li ko sëñ Touba defal sëñ Thierno Galangal nettali na ko ba tàyyi ni ba ko sëñ Tuubaa di wax bàyyee ma ko fekk keroog ba muy xew moo ko fekk loolu seere gënu ko rëy sëñ bee wax sëñ Fallu ni ko li nekk fi man yëpp dinaa ko def ci yow ba lu ci xajul ma xaj-xajal ko ci nee na loolu jaaxal ñu bari solo ba mu koy wax sëñ Omar a ngi teew keroog ma ñëw fekk sëñ Fallu mu mel ni ku tawat sol jàllaa bu ñuul nee na ma jub ko mu ni ma dara jotuma dara jotuma la mu waxoon rek lay def xaj-xajal gi rek moo ma def nii daal ni ko ba mu koy wax sa bàyyee ko fekke bi muy xew yaa ko fekke kon loolu seere la ci suñ jarul nen loolu maa ko fekke suñ fallu suñ fallu moom buñ toogee bëgg wax mayam marché occas bi mooma jumaa ji moo ko àggale armeel yi mooma fi ñu def sëñ bi mooma euh, Cheikh Ibra Fall fañ ko def mooma moo fi indi yoon wi dugg ci biir dëkk bi moo fi indi forage bi moo moo bind kaamil bi moo indi màggal gi Touba moo dem Makka moo tax daarul maarif mooy yoon wi Cheikh Mamadou Fadal moom lépp loo xalaat mooma kon ci gàttal moo yoonu murit moo tax ñëpp ko amel njukkal ci sant ko kon euh, maa ngi jox kàddu gi sëñ Fallu bu ko defee moom itam mu sànni ci ay ay kàddu ci bis bi incha allahu taala bisimilah sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yi moom du doon kàddu yi gudd sax euh, ginnaaw li sëñ Maamun wax kenn mënu cee teg dara li nga wax tamit kenn mënu ci rek dara te lépp rek day day sëñ bi rek ndax doo dégg kuñ ne lam defal sëñ Tuubaa koo dégg rek dañ naan la ko sëñ Tuubaa defal kon lépp day dellu ci sëñ bi rek teg ci comme ni ko sëñ Maamun waxe léegi rek lii nii day jàngale ne doomu aadama bi ak murit bi li koy jariñ ci sëñ Tuubaa du dara lu dul pas-pas ndax mag ña lañ rawee ba kenn dootu leen dab lépp pas-pas la rek te sëñ Tuubaa loolu la amee te ginnaaw dañ ne bés bi sëñ Fallu lañ ciy fàttaliku kon li ci ëpp solo mooy ci seeni biiri kàddu mooy pas-pas bi ngeen jàngale ndax mag ñi daanaka loolu rek lañ ñu rawe kon ñun ñi nga xamante ni dañuy ndaw ñëw ci bis bu ñuy fàttalikoo sëñ Fallu lañ cay jëlee muy sunu darsu mooy euh, pas-pas boobu gën cee góorgóorlu te xam ne lépp lu lu la lu la lu la waay ëppale ci sëñ Touba ndax sëñ bi moom kenn du ci rawe aw sant kenn du ci rawe ay wax liñ ci rawe mooy jëf rek jëf ji nag comme lam doon wax sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallou rek dégg naa da daan wax naan leen na ngeen defar seen jëmm ba leen gis bëgg leen waaye na ngeen defar seen jikko tamit ba ku jaxasoo yéen du leen mën a muñ wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaw kon jërëjëf sëñ Fallou di kon jërëjëf sëñ Mamoun ci kàddu yi yaakaar naa ni eh, am na solo lool ndax leeral yi fi leeral yëpp lu am solo la waaye itam ni ko sëñ mu mujjee waxee léegi lu ñu fi mën di wax ak lu ñu fi mën def rek ñu ñu ñu ñu ñu ca eh, tànki Cheikh Mamadou Fadal yooyu. bismillahi jërëjëf sëñ jërëjëf sëñ Fall jërëjëf sëñ Fall maa ngi sant yàlla bu baax di sant yonent bi sant sëñ Tuubaa di sant sëñ Fall di ko sant ci bis bii nga xam ne moom la ko suñ borom jagleel muy bisam muy Kazu Rajab di ñaan ci barkeb sëñ Fall lépp luñ ci ñaan maa ngi jaamu ci yàlla am na ko defal yàlla defal ko ko ay xewum fekk ko fa mu tëdd barke sëñ Fallou di ñaan it ci yàlla ak yónnent bi barke sëñ Fallou lii ñuy wax muy li xew ci réew mi yàlla ci suñ borom def saafara barke sëñ Fallou barke borom ko saragëb am nañ ci xel mu dal ndax borom mooy borom dana am moom borom du am du am kon lu mbir mu jóg lu mu rëy rëy bu fekkee tombee bisam mbir moom danañ ci am dal xel xam ne suñ borom dana ko woyofal kon yàlla na ko yàlla woyofal ci barke sañ Fall di sant nag ci bis bii ndax bis bi man sama bis la ndax sant sañ Fall man maay ki ko yeyoo def ndax man lu ma am Sëñ Fallu Sëñ Fallu moo ma yar fa ndindi wëlbatikuwaat dugal ma ci biirum njabootam ma nekk ci biirum njabootam ba yàlla dogal ma am fee njaboot kon su ma fi amee njaboot ba njaboot gi wëlbatikuwaat kenn ci njaboot gi taxawal bisub sant Sëñ Fallu loolu dama ci sant yàlla bu baax ndax man bët bu set maa ngi ci sant ko rek ci lay xëy ci lay gont ci lay bëccëg ci lay suba xañ naa ko dama dog woo xam ne su ma xëyee bu ma julee yor yor ba nag dama koy defal sëñ Fall ak cantam kon bët bu set amul jëndal kon su ma yendoo ci bisam tey damay yokka sant rek maa ngi sant sëñ Fall di ñaanal nag ki nga xam ne mooy ki taxawal bis bi di ñaanal yàlla may ko kàttan ba mu gën koo man ci anam yam ko bëgge